asalaamaaleykum euh, mbokku Sénégal yéen ñi nga xam ne nii yéen ñu seetaan si biir Sénégal waaye nag si diaspora bi yëpp bépp jiwaan rek ñoo ngi leen di nuyu di profiter si occasion bi rek di leen souhaiter une excellente année 2024. tey nag dañoo ñëw euh, def loo xam ne nii mën a nekk droit de réponse droit de réponse si euh, benn mbir moo xam ne nii yàlla dafa def ah mu tegu si sama ko on peut dire comme ça des fois nag am na loo xam ne nii du yow yaa koy seet mais yàlla lay def rek mu doon ay jaar-jaaru àdduna euh, comme ni ngeen ko xamee yéen ñi nga xam ne nii yéen ñuy suivre sur IK News ak à travers aussi page YouTube bi wala page Facebook bi wala sur suñ page euh, suñ page YouTube YouTube IK News et aussi à travers euh, beaucoup de plateformes comme WhatsApp gis ngeen ne depuis un certain moment maa ngi partagé ak yéen benn liggéey boo xam ne nii dañ ko liggéeyoon jëmale ko si mbiram élection présidentielle au Sénégal mu doon xalaat bo xam dañ ko amone euh yalla def ñu liggéey ci liggéey bu yàgg été bi yépp si lañ nek diko ko liggéey euh, mu ñu tuddé won ko grille d'évaluation du président idéal muy rek ben géppi géppi luñ ci djublu won moy wala luñ ci djublu moy euh d'habitude nit ñi bu ñuy voter Sénégal dañuy voter rek euh, comme ça yama neex ñu nak gépp dañ ko euh liggéey ko liggéey bo xam mu jëla ñu temps bo xam yalla rek mo xam liñ ci daj euh, danaa ñëw légui ci biir waxtaan bi ben anecdote bo xamné ni moma moom ci daloon état bi bi ma nekkee vacances feulé ci dëkk bu ñu wax scénario sur mer euh, donc gépp mom moy ni la mel c'est-à-dire que né expliquer won nañ ko bu ngeen démé suñu page Facebook yeeg page yi ma wax yooyu yëpp da ngeen fi gis li fi expliquer lépp ci ci liggéey bobu c'est-à-dire euh, bo ñëwee tay candidat présidentiel Sénégal yi dañoo def liggéey critère yo xamné ni critère dañ ko baser ci démocratie luy doxal réew ah luñ soxla démocratie wala ak lepp luñ soxla président de la république lu mu pour mu dox dañ euh, en trois parties partie bi ñu valeur personnelle du candidat partie bi mu contrat social institutionnel beneen partie bi programme candidat bi. Euh, l'idée nag wala liggéey bi nag li da doon day tax euh, analyser sur tous les plans dans le long terme et dans le court terme xam jikkoom xam xam le, élément yépp a ngi fii euh, donc euh, donc voilà léegi bi yalla defee liggéey bi nag ku ñuy wax Raymond Semedo euh, di suñu ben kilifa ben paaw sénégalais Sénégal, xam ne nii ku am xam-xam la yalla def ko mom expérience sur lu bëri da see moom daj lu ne ay état bi yëpp dañ fee nekk di liggéey di si envoyé ay email samay xarit yoo xam ne sax damay liggéey ak ñoom ñu jege ma ñoo xam ne yàgg naa ak ñoom ah, euh, ni suñu benn xarit boo xam ne ñoo ngi xamante woon depuis bi nekk Dakar Université Club 1990 99 muy Balla Ngom Université Cheikh Anta Diop Dakar sax da pare liggéey bi laaj ko xalaatam sama beneen collègue ñoo xam ne mënu ma cité ñi nga xam ne ñëpp yàlla def na ñu wax seen xalaat parce que liggéey moom lu xel yi gën a bëri muy gën di euh, jaar yoon. bi liggéey bi yëpp pare ma def samay article publier ko pour Sénégalais yi man ko jëriñoo def ci aussi ay ay vidéo def ci sax ben interview bu ñuy wax Dakar Djibouti bu ñuy wax euh, la voix de Djibouti euh, interview euh, vraiment expliquer le nu principe bi demee le 5 novembre de 2023 bi weesu maam koo xam ne nii yàlla dafa dem ñu tasa fi ci Paris ya a plus presque les mu mat 10 ans muy nit ko xamné ni comme ñun ñëpp Sénégalais yi dañoo nekk fu ne di daan suñu doole nekk ay Sénégalais yu am jom du liggéey euh, di gorgorlu pour Sénégal ma amoon si moom confiance ah ñu contacter ma contacter ko WhatsApp dama doon échange ak mom sax ci leneen parce que comme ni mo wax rek sénégalais ñun ñep en en général euh, voilà ay ay nit ñoo xam ne ni dañuy góorgóorlu am jom di di am ngor surtout nak donc 5 novembre 2023 ma la ko njëkk bind pour euh, expliquer yu ne ko gris bi lépp liggéey bi yëpp. yónnee ko aussi article yi ma def expliquer ko lan moy njëriñu lan lañ ci jublu. wax ko comme comme dafa yoro société di liggéey affaire site internet ak application ma ne ko nag lii dama ko bëgg dama ko def ba paré mais dama bëgg nak légui kuma créer site internet bi pour bu élection présidentielle yi Sénégal ñu mën ko def euh, site bi Sénégalais yi mën fa dem di voter candidat yi di den tan mais nak basé wu ci critères yi mu répondre ma ci sonore bo xamné ni mi ngi fi ku ne mën ko dégg mais nak comme que nit mom mën na joom mais da nga koy jéem a suturaal ku ni sutural aussi yow war xam sa bop motax buguma bugguma diviser sonore yooyu euh, voilà fim wara dem ba man ñep fi yoon wara bu ba fa war egg ba yoon xamne man maa nekk sama dëgg boba dina fa dem donc mu tontu ma ne ah c'est une idée extraordinaire li mo ñu manké won ngay dégg cardom di wax wax appréciation wax lepp ne ma wa mën naa la ko defal site bii man damay liggéey site ñu wax ba application wax ba ne finalement sax bon site lañ koy def ñu mako ko si relancer di ko wax ne bon wax ko objectif lepp lepp au total mi ngi nek 23 sonore WhatsApp Euh, ba man sax am benn xarit avocat boo xam ne nii aussi dañuy waxtaan moom it euh, ma waxoon ko li ma bëgg a def mu yónnee ma benn lien site boo xam ne nii da fay dugg def sa bi ni ma ko bëgg ma yónnee ko kii nga xam ni moom laay wax du ma jaar si turam pour mais moom euh, danaa danaa leen expliquer lépp léegi nag mu jël moom bi ma ko yónnee ne ko gis li ñu waxoon pour créer ko bi dafa am sama xarit avocat boo xam dafa bi apparemment mën nañ si def la même chose li ma bëgg a def mu ne ma mu toog ba mu neex ko mu tontu ma ne waa gis na affaire bi.

j'ai une notification Facebook je waa jooju euh, invité à liker une page site internet ma dem site internet parce que je suis sax 2h du matin je notification et cetera euh, site internet bi gis page site internet la ma bëggoon faire, site internet ba valeur professionnelle personnelle du candidat contrat social institution euh, programme du candidat lépp site bobu ma gis si ñu ne votelal candidat bi leen neex Sénégal euh avec plusieurs critères wax valeur personnelle lépp li ma def fi yépp mu copier ko def ko site bobu. xam nga nag doomu aadama da ngay tey bala ngay toj géemu sàmm wala bala ngay am réaction yu baaxul da ngay tey analyser laajte ma ne ko waaw diw site bi kan moo ko créé wala ñan ñoo ko créé mu ne ma waaw Eh, man mako ko créé ak samay partenaire laya layam laya layam ba nice ma duggaat ci bi té première fois sax man bima duggé ci bi rek amna yu wa première gisuma man gis bima gisé principe rek gisuma sax détail yi parce que bir bi même journée bi la guddi gi la duggaat duggaat duggaat xolat di fouyé gis lima wax ni légui ni manaka mé yow yow manaka mé yow yow ta fait du copier coller tout ce liggéey bi ma ba sa bop

site boobu mu tudd mu def nak nag tudduma turam mais site bobu mu liggéey mi ngi tudd Teranga vote té li ku ko liggéey da nga xamné bala ngay def ab organiser affaire vote euh sénégalais man dem di voter da ngay xaar sax ba sénégalais yépp ba ba conseil constitutionnel bañ passe étape bi bañ xamné ñi ñoy candidat yu woor à 1000 pour cent dañu élection présidentielle parce que ñun loolu lañ doon xaar parce que pour liggéey liggéey da nga xam.

loo xam ne nii daal man yalla ma yalla musul mais man buma ko defone nit vraiment duma ma du ma damay mais je serais très très mal et j' vraiment gêné pour lui nit ni sax samay conseil ñoo ma yow ki mo def lu ñaaw lan motax yow ngay gêné mais dama xalaat sama bop rek loolu buma yalla natone natoon dal ma nan lay def. nga gis nak article presse yi ko presse Sénégal yi réservé ñu naan diw l'entrepreneur qui révolutionne le vote sénégalais il numérise le vote diko wax mu wax fa lu interview ko mu téye costume cravate am def wax lo xamné ni mu leer na loolu sénégalais buma ma dégg xam nga né coïncidence boobu mu am té coïncidence bu amone sax xana kay ki tuddé li yëfam tuddé li yëfam do ko boobaa yow bu do nga xalaat xaar xalaat bopp à part xanaa ma fa doo jël les mêmes les mêmes mots muy muy numéro 1 muy muy lén té même bu do né man mu waxuma seeg mom sax ci liggéey bi mu defal ma lu mel noonu ah li tax ñu nekk maam mom ay ami Facebook mu nekk sama groupe réception WhatsApp bo xamné ni lépp ay journaux français ak monde bi yépp dama ko fay duggal sénégalais yu bëri di ko jëriñoo ak yeneen ak yeneen bu doon ne sax man suñu wax sax moom mu xëy rek créé lu mel noonu rek moom dèjà xel mën na ñaaw wax mu naa la koo xam ne dana jël liggéeyam jox la jox la ay lien wax la ay sonore ne la defal ma lii lu mat vingt-huit sonore lépp ngay wax kàddoom sa kàddu kàddoom sa kàddu ba mat xaw ma ñaata sonore lépp ngi fi ma dégg au total vingt-huit la vingt-trois ou vingt-huit vingt-trois vingt-trois je précise vingt donc loolu laa ñëwoon tey di leeral presse sénégalais yi nga xamné ni da leen a sollicité ñu bind né mom diw mo def lo xamné dañuy révolutionner le vote ak euh, ay à travers des critères def appel site bobu né sénégalais nañ vote ak fonction des critères lolu lewuko du liggéeyam te nit ku né nak boy wax yalla day tax nga wax da ngay am say preuve fu ñu war dem nak si yoon parce que yeneen réew ngay nekk di def lu yoonu mu lay jig mais Europe ak réew yu bari yoon dafa nekk te nul n'est censé rendre justice soi-même

ma sama soxna man ma war a jël pañe bi nga xam ne si lañ def sandwich yeeg serviette yeeg lépp pour ñu dem plage fi ñu nekkoon nag plage bi dana koy dox ñu dem man maa jëwoon saa bi war ko jël mais maa ngi concentré si liggéey bii li may def di modifier ak di di liggéey noonu lañ àndee dem ba plage ñu taxaw ñu ne ana ana saag bi def yore sandwich yeeg xale yeeg ñëpp fu mu nekk ak sa kii bi tiens papa fàtte na ko sa appartement la ndax rek concentré wu si liggéey bi loolu benn anecdote rek la donc nit bu liggéey liggéeyam daj ci lu ne yow mënoo jógee si àll ba ñëw ne da nga ko jëriñoo wala ñëw di si mbubboo loo xam ne ni ki ko liggéeyul sax jéem ko mbubboo da ko def rek te yàlla tax pour sénégalais yi mën a voter avec des critères objectifs yoo xam ne danañ tax ba ëllëg Sénégal am président de la République boo xam ne mérite na Sénégal dana liggéeyal sénégalais yépp ba Sénégal am nekk réew moo xam ne sénégalais yi danañ danañ am bien-être mën a faju am lu baax li ko yi réew yëpp amee ba nga xam ne benn doomu sénégalais du jóg di juuti feneen liggéey loolu lañ ci bisu liggéey bi jóg defuñ ko ngir tur defuñ ko ngir leneen léegi nag keneen jóge si àll bi moom foqati ko ah ne nag moom moo mérito sénégalais yi presse di ko si tàgg dafa sàcc yi fi euh lool rek la amoon ci lu may euh je pense que je voulais même le faire en français pour le monde francophone euh, on verra si je le ferai mais euh, nous la demee képp ku gis nak site internet bobu ñu wax Teranga Vote ak leneen Sénégal ak si aduna bi yëpp mo xamné da fay def organiser euh, consultation lool vote

ah lu ñu lay wax mooy ñoom sax jaaroon ci ni nit def na leen lu mel nii ba mel ne ne Sénégalais da def rek ñu ne bàyyi leen ak yàlla moo tax nag ñun ñu ñëw tey pour leeral Sénégalais yi ñu xam ne eh, encore une fois lii c'est un boo xam ne ni de longue date jëlal nañu temps boo xam ne yàlla rek moo xam ne si daj képp fu ngeen gis ñu ne diw ne moom moo ko defee it xam na yëfu jaamu la jël waxul dëgg jërë ngeen jëf.